Thiaw moo ngi noonu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay waaye di nuyu suñu mbokk internet yi di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ngi tëdd ci loolu hôpital di leen ñaanal gudd fan ak wér ak wér la ñi nga xamante ni ñoom la caa féete ginnaaw di leen ñaanal li nga xamante ni mooy liberté ba ñu mën a dellu ci li nga xamante ni mooy seen njaboot waaye tey nag maa ngi fi nga xamante ni mooy Pikine seet si un très grand champion seet si ndaanaan seet si kenn koo xamante ni bu bëree mu neex muy Alliance Baldé mu am combat bu spécial si diggante mag ki nga xamante ni mooy ndigal bu Grand Médine Bamba euh, Milano moo fa jaar waaye lool yëpp dinañ ko waxtaanee waxtaan tamit ci li nga xamante ne mooy actualité dama koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu woy li nga xamante ne mooy waxtaan bi Alliance Baldé maa ngi lay ziar. waaw gannaaw baatu onze billahi mina seytaani rajim ñu sant yàlla di jullu si yenent bi di sant suñu ñaari waajur di leen ñaanal ñu yàgg fi lool di ñaanal ñu caabi fee di ginnaaw yàlla na suñu borom génn leen te bañ leen faa delloo ñaanal ñi nga xam ne ñoo tëdd si lal hôpital yàlla na suñu borom fëgg seen bopp te bañ leen tëralaat di ñaanal ñi nga xam ne am nañ doole amuñu doole poos yàlla na suñu borom defal leen ay doole poos di ñaanal kilifa diine kilifa aada yàlla na yàlla wéral leen yàlla na yàlla sàng leen mbalaanu suturo yàlla na Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ci baar Seydina Muhammad na solo si loo ne. waaw sant yàlla alhamdu kay ñu ngi sant bu baax a baax a baax. Hmm. Hmm. ñu gis am combat bu spécial sa diggante ki nga xamante mooy ndigal bu Grand Médine waaye laata ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy làmb ji. dégg nañu ñu ne da ngaa demoon bëre Kaolack lamb jooju naka la demee woon. waaw damaa demoon bëre ji Kaolack combat bu metti waaw mais xam nga rek comme dëkk jàmbur nga dem bëre ji làmb ji jaxasoo ñu àtte ñu ñàkkal démb yàlla def ñu génnee verdict def ko sans verdict. Mhm. loolu làmb la la woon. bëre dóor la woon. waaw. Mhm. waaw. dañ koy reconnaître quoi. waaw dañ koy reconnaître waaw. Mhm. loolu jaral nga dem ba Kaolack bëre waaw suma dëkk la sama cosaan la yàgg naa fa bëre bëre naa fa cinq combats am naa fa trois victoires. Mm-hmm. xam nga xamoon nga mbër mu wér non xaw ma ko ah, parce que ñu bëree bari même booy ñaa sax loolu daf ko xaw a jaaxal bu ñu duggee ci géew bi. Mm-hmm. mu gis waa nu mu toll ñoom ñëpp dañoo amoon problème muy booy ñaa mu ngi fa woon ak yeneen mbër. ñoom ñëpp dañoo am problème mais man waaw comme li ma rek ma battre score bi duma ko kaaw ko. kaaw ko barki Serigne Fall. arbitre bëgg xeex. mu moo ma upp sut ma loo ma las ma arbitre soufflé ma dox si kawam duma ko kaaw ko. Mm-hmm. mu daw jël sama tànk def quatre appuis. Mm-hmm. dóor boppam si suuf. Mm-hmm. arbitre jóg jox ko victoire. dëgg la ñu kase victoire def ko sans verdict. victoire la ñu waroon jox mais sans viril lañ ko def. mais combat bi si wul xanaa amul promotion ak yooyu. Bantamba mu ngi fa woon. non laata làmb ji. waaw amul promo fii Ndakaaru mais amoon na promo Kaolack quoi parce que ñoom làmb Kaolack la ñuy doxal quoi. Mhm. boo moo nekkoon grand combat kii moo nekkoon grand combat Boy Saloum ak Gorel. Mhm. spécial nga doon bëri. waaw doon bëri. Mhm. ak ah, combat boobu moom siw na Gorel ak Boy Saloum. waaw Gorel ak Boy Saloum ñoo doon bëri grand bi. ñuy gis nga am combat bu spécial sa diggante ak Ndigal bu Grand Médine alliance à chaque fois day gis mu jóge ci ay combat yu yu yu yu kii yu tar mais bu jëlaat combat tamit day jël ay boy yu risque affaire yooyu lan moo waral li nga xamante ne mooy soit booy boo xamante ne musul daanu. waaw combat bi moo may dugal si làmb moo may génne si lamb combat bi waaw. moo ci làmb. moo may génne si làmb. ci laay bokkee si làmb ci laay bàyyee làmb. barke Serigne Saliou. kon booy am na problème de. am nga comme lu may wax rek ndam yàlla moo ko yor bàyyi woon naa làmb barke Serigne Saliou Mbacke. mais làmb ji moom mooy dugal si làmb moom mooy génne si làmb. waaw ñaanu moo ko yàlla ndam yàlla moo ko yor. mais su ma ndigal daanee ma bàyyi làmb. dañuy rek. waaw ñun ay jaam lañ dañuy ñaan. ndam yàlla moo ko yor. mais nañuy def lu ñu war a def lépp. Mhm. te bu arbitre soufflé du ñu wane yaafuus. Mhm. dañuy dëggal suñu bopp dañuy xeex dañuy bëree. Mhm. lu ñu yàlla may ñu gërëmee ko ko yàlla na doon ndam. jàmbaar la. comme lu may wax rek xale la. ñaari xale ñoo daje. day wut may wut yàlla na suñu borom may ma. mais dina am xeex dina am bëre. te comme lu mu wax rek dama ko seetaan mu ne bu arbitre soufflé moom mooy ñëw parce que daa mën a xeex. dëgg su ma taxawee sax du ñëw. am na ay kaawa de. lu ma la su ma taxawee sax du ñëw. boo taxawee du ñëw déedéet. mais am na ay kaawa laa wax. mbër musuma dóor. mais est-ce que mbër yooyu ak booy bi benn lañ. non non te mbër hmm. ci làmb loo xam defuma ko maa ko ëpp ay combat ëpp koy victoire. mais musul daanu. waaw mais maa ko ëpp combat ëpp koy victoire. mais loo mënul ci mbër musul daanu. ñi musul daanu dama leen a daan Sa Thiès bi ma koy daan musul daanu. Hmm. dund bi ma koy daan musul daanu. Hmm. sibar bi ma koy daan musul daanu. mais loolu man jaaxaluma si làmb luus maa ko dóor stade Ndiarème mu daanu maa ko génne si làmb. Sa Kajoor maa ko mënatumaa jaaxal si làmb waaw maa ngi ñaanal Serigne Modou Niang parce que yàlla na suñu borom xaree ko àjjana yàlla na suuf woyof si kaw moo ma njëkk a dëggal làmb moo ma yóbbu parcelle ma daan mu yóbbu ma esaan njaareem ma daan mu yóbbu maan ma esaan njaareem ma daan keroog damay waxtaan ak gars yi mel leen sëñ Modou Niang deseel naa ko douze mille cinq cent te xaw ma nan laay def ba fay ko ko oh. bërki démb rek parce que xaalisu tikke la woon ma verse ko trois cent nangam mille quatre cent mille la woon mu des maay wax njaga ñaa ya, wax lu am solo waaw bu fekke daf makoy djegal mu djegal mako bu fekke djegal mako man mën na ko fay du problème mais loolu bor la na khalisam la bor dëgg mooy waaw khalisam la quoi du lo xamne man mako mom mom moko mom mako waron maa 400.000, waroon verse quatre verse ko mu manqué 12500 kon khalisam la comme mom nekotu fi njabotam la wax su fekke dañ may djegal ñu djegal ma bu fekke dama len di fay ñu ma fay len amna solo sa yo xé stade Ama balde sa diggante ak Ama la Ama sama mag la mm sama papa la hmm. sama mbeur la hmm. nit ku gën ci man la wër koor da jot mu wom ne ma ñewul kër ga mu ñew mu jël xaaliss bari jox ma yedd ma conseiller ma hmm. daf may wo téléphone waxtaan ak man mbeur yëpp pigin sama xarit lañ boy ñaa dama am combat mu may ma xaaliss bari mais man xaaliss ñoruma parce que day jeex ay kayit la rek amul njariñ mais nit ku bax la daf ma fekk kaolax ñaanal ma ma yalla na la yalla may ndam ci barké cheikh na cheikh sad barké alcoranu karim kottuma mu nekk loo xam ne dama koy yëg ndax jàmbaar la mm. mais Ama kenn la ci man yàlla moo ko def. li la a neex benn combat laa mos jooy suma àdduna jooy mu métti ma muy combat am ak nees boobu duggaguma ci làmb mm. mais damaa jooy esaat ba suma gaale dugguma oto ma ñëw tëdd reeru ma parce que am naa lu ma métti benn mbër laa am pikin muy Ama Baldé ñëpp kuy bëree dama lay ñaanal ndam mais yàlla mooy def lool si doomu aadama Ama mooy suma mbër boo xoolee Baldé bi Ama moo tax ma sant Baldé man beneen tour laa doon bëree mbapat mais après alliance bi benn nante la bu nekkoon fii ñu am poroblème gars yi di alliance ngi ñëw alliance ngi ñëw après Balde bi man maa ko si dugal mi alliance Balde loolu moo indi alliance Balde ni cofeel bi mhm. mais mu am combat bu spécial si diggante ak ki nga xamante ne mooy Modou Lo ah, Ama Balde lamb jooju naka la ko war a bëree ak naka la war a ñëwee ci li nga xamante ne mooy lamb ji maanaam ma la leen su lamb ji amee mhm. Ama dina bett Sénégalais yëpp parce que ñu bëri nee nañ Modou Lo moo dàq xeex Modou Lo moo dàq bëre yeggaguñ ci loolu bis bu làmb ji amee. teg lu baax bu làmb ji amee. amaat na bet ñëpp. mais ñi naan ah mais mais mais mais tey jii laataa ñu ñëw ci loolu mais ñi naan Ama parewul physiquement. <laughs> ku parewul dina mel ni Ama. Hmm. <laughs> waaw yow nañu Ama ay cinq la entraîné cinq ans. Hmm. la toog bëriwul léegi ñu dugg ci six ans. Hmm. ku toog cinq ans entraîné cinq ans bëriwoo boo parewul la ngay nasa bopp. li nga wax nii ne bu fekkee làmb ji am na. waaw bu fekkee làmb ji am na. Ama dina bett ñëpp. ci ban côté. waaw mais si côté yëpp bu fekkee làmb ji am na olof laa la wax. mais nga ni bëri. non du ma wax wóor na maam ma wax wóoru maam dama ne bu fekkee làmb ji am na. Ama Baldé dina bett ñëpp. bu fekkee moom waxu bu fekkee loolu waxu waxu mag la. ah moo tax ma la Ama dina bett ñëpp bu làmb ji mais ci côté ci côté bëre ñoom ñaar. Ama ah, mo dàq bëre loolu nit ñi ñooy wax Modou Lo ah, moo bëre. Ah, non non pas Ama moo dàq bëre. Hmm. parce que Ama tey combat ñu wax yëpp tey ñu rey ko. daa ñëw battre score bi moom Malick Niang Sénégal yëpp dana woon tey ñu rey ko. Hmm. mu ñëw daan ko. Hmm. moog moog yeneen ak ñeneen noonu. Ama bi muy daan bala Diouf si digg dooleem la ko fekk. daan Mbaye Diouf. daan Kati Junior. maam daan champion yi ñu fi tudd ñëpp. maanaam Ama kenn tànn lu ko yoon moo génne boppam. mais en tant que champion da ngay bëre. Mhm. xam nga mbër. Mhm. ak qualité bëre yu nekk ci Modou Lo. Mhm. bëre Modou jaaxal na Ama Baldé. état bi Modou Lo yor mënul daan Ama Baldé. <laughs> état bu Modou Lo yor mënul. daan Ama Baldé. loolu foo ko teg. Modou ba muy bëreeg Bombardier. lan moo ko daan du ñàkk doole. moom combat bi daa waroon yokk doole boo xam ne bu dalee si kaw Ama mu yëg ko. est-ce que poids kii bi arrangé wu du état bi du mooy daan état bi la Papa Sow indi woon état bi mënul daan Ama Baldé Ama Baldé boo ko bëggee daan da ngay toll ni nes ban lese moo fi daan Ama Baldé. ah waaw état bi mu yor moom ñi ko doon entraîné dañ ko nax état bi munul daan ama daan ama. kon yéen waa ma ba yeewaale Modou Lo dañuy daan chaque jour day roi des lu mu Ama Balla ñaari xeexkat la fi dajal. yaa joxul jóob dee sax. la fi dajal. bari na waaw mais man musuma gis ñu ba Ama Balla mais adversaire yi est-ce que bokk nañ. waaw mais adversaire yi bokk na ak bokkul Modou Lo état bi mu yor mu mënul daan Ama. daanu na ma Ama Baldé moo moo préparé Balla Gaye ñaari combat mu Modou Lo yëpp. est-ce que du laabaliwaat. <laughs> waaw moo tax ma ne la du Modou Lo du du Modou Lo bii ma gis mooy daan Ama Baldé. mais nee na Ama moo gën a neex a bëre. ah loolu yeggaguñ ci. parce que day màmb. ba la 5 la 5 la ñuy xam Ama moo gën a neex a bëre wala gënul neex a bëre. mais combat bi dina yàgg. ko de. mais di nga di nga ne di nga digal Ama Baldé mu rapproché Modou ko. man de pare naa pour teg si combat million. million. billaahi pare naa ko pour teg si Ama Baldé million pare naa ko man. pour la ndam. waaw. bu lamb ji amee bu ñu nee suba la lamb ah. nañ ma woo téléphone kay pare naa. pour teg mais Alioune lu nga bu lamb ji amee xanaa dañ laa déene lamb ju am wala lan la. lan la ñuy préparé Sénégal. élection yi waaw. Hmm. à tout moment à tout moment leneen ak leneen mun na kon nañ nañ jàpp ne nañ rafet njort ne day am rek mais dañuy dañuy dañuy dañuy prévoir lu ne mun naa xew. Mhm. waaw. lu ne mun naa am yàlla na yàlla def jàmm daal làmb ji am. Mhm. waaw loolu la ñuy ñaan yàlla quoi. tamit maa ngi lay kontaane. Mhm. maa ngi lay maa lay kontaane bu baax a baax am na ñoo xam ne nag. il faut que cant ngërëm parce que. ñeena la quoi. waaw di wax di wax le trois. Ah. suma frère daa woote ñànku. ñangu daa woote grand théâtre la trois di ci woo ñëpp. di wax awa. Mm. ñangu sa mag la. ñangu sa frère la tey bu ñu la xamee ci aar bi à à cause de ñanku. boo ko leen ndey boo ku bàyyi xam ne lépp day jeex bu déglu kenn. képp kuy wax intérêt rek moo ko ñor. mais nekkal si li nga nekk boo ko leen ndey boo ko bàyyi xam ne aar bi day jeex. di ñaanal suma benn suma suma suma frère yi nga xam ne ñoom laa àndaloon Kaolack ñoom dañoo bàyyi seen yitte yëpp dem. Iva maa ngi koy bégee bu baax di ko ñaanal yàlla defal ko sutura maa ngi ñaanal pen xam moom moom sonn na ci gis nañ taxawaay bi ñaanal naa suma frère Mbaye Diop ñaanal naa Boudia booy xam nga amadu Amadou sonn na si trop parce que sëñ Fallou Touba fu laa ko doon yóbbu mu dagg yitteem yëpp maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko sutura bu baax ñoom lëz ñaanal naa Moussa Talibé Cheikh Lif Sommer xam nga bégee naa ñëpp bàyyi ma kenn mais damay ñaanal ñoo xam ne kenn la ci man muy grand Charlie da ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax Maria maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko sutura yàlla defal ko jàmm bu baax a baax waaw yàlla yàlla yàlla defal ko sutura di ñaanal Girif Sougou borom États-Unis koo xam ne wax tuuti jëf lu bëri te lu mu wax def ko Girif maa ngi lay ñaanal yàlla defal la sutura Maria maa ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm bu baax a baax a baax a baax a baax Babacar maa ngi koy ñaanal Babacar Bongo Mor Thiam Mor Thiam Kolle Ndoye xam nga madame Seck maa ngi koy ziare bu baax a baax di ñaanal suma benn frère si borom si benn si benn suma benn jigéen Maria Etali di ñaanal mbaalo campenal kooku jàmbaar la maa ngi koy ñaanal mbaalo yàlla na suñu borom génn ko foofu te bañ ko faa dello di ñaanal waa campenal yëpp yàlla defal la sutura di wax Sénégal ah kilifa yi nañ ñu jàppale dañoo lañ nekk dañoo war a jënd ay yére ay siletement ay rob yoo xam ne dañ ko war a yóbbu campénal ñu ngi siy taalal ñëpp loxo ñëpp ñu ngi siy taalal ñëpp loxo ñu jàppale ñu soxlawuñ xaalis nañ ñu jëndal ay sous-vêtements jëndal ñu ay yére yoo xam ne pour ñoom la muy jigéen ñi muy góor ñi ñu ngi siy taalal ñëpp loxo di ñaanal suma frère suma xarit Guèye xam nga di ñaanal madame Seck madame Seck yàlla na suñu borom defal la jàmm yàlla defal la sutura yow ak sa borom kër di ñaanal suma yaay Ramata Wade ak waa gaale yëpp ñaanal suma waa koñ suma ayse di ñaanal suma président bu ndiir bu maa ngi lay ñaanal yàlla defal la sutura defal la jàmm gis nañ taxawaay bi sama Serigne Serigne Samba Ndour Serigne Jambour maa lay ñaanal di la wax combat bi ñu jëm sa combat la seen Jambour maa lay ñaanal bu baax Girif Sow États-Unis l'international wax tuuti jëf lu bëri lu mu wax def ko bari sëñ Fallou ñu ngi lay waat ci combat bu baax di woo suma yaay Ramata Wade bu baax baax baax di ñaana yàlla defal ko sutura ak bépp mboolem jëlu ci bari Seydina Mouhamed kontaan naa ñëpp ñaanal naa ñëpp jaam ñaanal naa sit bi waaw ñëpp yàlla defal leen sutura bari Seydina Mouhamed. aja mooy noonu am na solo bu baax a baax ñoo ngi koy kontaanee di wax seen émission xaar nañ ko ci beneen numéro ak beneen daanaan jaa ngeen jëf.